Senegal, Sénégal seen wér gu yaram dafa nekk lu am solo toppatoo sa yaram nekk nag yitte moo tax da ngeen di tànn produit yoo xamante ni dañ koo defar ak suñu ay gàncax produit naturel produit bio tànnal sen natural bio sen natural bio andil na leen promotion fin d'année

te nag da ngaa trop bugg jeex slim tee ngi fa café vert ak thé vert ñaari feebar yu sonal askan city, muy city ak hémorroïde bo ñëwé suñu ay boutique dinañ la jox ay produits yu koy fajj produit cosmétique yu naturel muy lait corps shampoing chaîne natural bio en spécial promo jusqu'au 1er janvier 10 à 30 de réduction sur tous nos produits